International. Sénéinfo International. internet yi teewlu sene info point net ak sene info international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal tonk xibaaru tey vendredi 25 septembre 2020 koy tàmbaleeg xew-xewu biir réew mi euh, taw bi nga xamee nag euh, nemmeeku nañ ko démb ci yenn localité ci Sénégal jot na def ay jéeye fu ci mel ni dëkk bu ñuy wax Sama Ndiaye fële ca Kédougou euh, dafa am ñaari nit yoo xam ne muy ab nit ak doomam yoo xam ne sax dañoo ñàkk seen bakkan gannaaw bi nga xamee ne nag lii di dënn bi di foudre bi moo leen fekk sax ñuy nelaw seen biir nekk dal seen kaw ba sax ñu ñàkk seen bakkan lu ci mel itam fële ca pas yi nemee nañ fa benn xale góor loo xam ne dafa ñàkk bakkanam gannaaw bi mu doon fubal moom it kon dënn bi te ñu naan ko bi moo dal ci kawam amit ab jigéen boo xam ne moom ci biir ndoxu taw itam la ñàkkee bakkanam ba léegi ca Mbàkke itam ñu ngi fay signalé ab góor goo xam ne itam lii di taw lii ci biir taw yi kon la ñàkk bakkanam Euh, dañuy desandi ak mbirum taw yooyu sax bésu tey bi ci vendredi daal ci matinée vendredi bi kon euh, waa météo xamle nañ ne dina am ay taw wante nag taw yi du am doole taw yi du am doole kon dina am ay taw daal ay localités yu bëri daal ci Sénégal dina am ay taw yu ñu fi nemmeeku donte du doon ay taw yu am doole donte du doon kon ay taw yu am doole lool Euh, ba léegi euh, waa ANACIM kon nee nañ euh, ci après midi bi daal ci après midi bi kon dinañ ñemee ko daal benn temps bu stable wante nag stabilité boobu daal du am lu ci mel ni dakaar ak lu ci mel ni axe Dakar Cap Skirring nga xam ne dinañ fa nemee kon ay taw yu xaw a yemamaay soxna Aïda Diallo nekk kon soxna ci ndem si yàlla Cheikh Béthio di giddee cant kon moom nag dañ koo tere mu amal bépp yëngu-yëngu ci màggal gi kon ci màggal gi dañ ko tere mu amal bépp yëngu-yëngu fële ca ngaabu nga xam ne kon fa la féetee ki nga xam ne moo xam ne li mel nag mooy Serigne Modou Lo di responsable moral bu Safinatul Amaan nga xam ne sax kon moom moo féetee foofu moom la xalif bi kon féetalee foofu la ca ngaabu moom nag nee na lépp loo xam ne manifestation la ak ak ak def ay bâche ak ay xumbaari ak yi ni mel loo xam ne daal am na yoo xam ne nemmeeku woon nañ ko daaw ci màggal gi kon ñu ngi koy tere kii di soxna ay ñu tere nañ ko kii di soxna Aida Diallo ak ay ñooñam ngir ñu amal ko ci màggalu euh, ren gi moom nag di Serigne Modou Lo Ngabou mu ngi doon wax ci kàddug euh, xalif général des Mourides cinq tonnes ci chanvre indien te ñu koy woowee Yamba jot euh, jot nañ koo jàpp nag ci région administrative du centre lu si mel ni Kaolack Kaffrine Fatick ak Diourbel Euh, depuis début année 2020 bi loolu nag ki ko xamle moom mooy euh, colonel Bourama jéeme directeur régional des douanes gannaaw nag bi mu amalee ab tukki ab ab tukki ba nemmeeku kon euh, foofu la ca foofu la ca Koungheul kon ci la ko doon xamle moom nag dafa demoon foofu ngir nemmeeku liggéey bu rafet bi nga xam ne kon douanier ñu ngi koy def Euh, gannaaw si bi nga xam ne nag jamono yi rek jamono yi jamono yi ñu weesu rek sax ñoom euh, lii di douanier dañ fa amal ab saisie record bu toll ci 2 virgule 282 tonnes bu chanvre indien buñ paree kon fii Sénégal dañuy dem ci Afrique euh, fële ca Mali nag bésub tey bi kii di président bu bees ba kon di Bandaw nga xam ne moom la fa l'armée bi teg armée bi nga xam ne kon ñoom ñoo jël pouvoir bi gannaaw bi nga xam ne kon tabb nañ Bandaw Euh, muy président moom nag tey la war a waat kon tey la war a prêter serment tey la war a waat ci kanamu malien yi gannaaw bi nga xamee ne kon moo war a jiite réew ma ci ab période de transition bu toll ci 18 mois woon e nag ñu ngi xaar ci ñoom ngir ñu teggi sanction yi nga xam ne kon tegoon nañ ko ci réewu Maliw teg nañ ko kon ci réewu Mali gannaaw bi nga xam ne kon tabb nañ ab président euh, civil dañuy desandi tax dañuy desandi kon foofu la ca Mali nga xam ne kon force armée malienne yi di Fama dañoo ñàkk lu toll ñett ci seen ay soldats gannaaw ab attaque terroriste boo xam ne mu ngi amee ca Boulkessi ci région bu Mopti blessé yi nag jot na leen évacuer ca Sévaré ak ndimbalu euh, MINUSMA ci ab interview boo xam ne kon mu ngi ko doon amal ak hebdomadaire français bi di Paris Match euh, président ivoirien Alassane Dramane Ouattara moom nag dafa dénoncé stratégie bi nga xam ne kon. muy doxalin bi nga xam ne kon ay opposant ñu ngi koy euh, doxal moom nag euh, mu ngi juñ mu ngi gën a jiiñ euh, baaraamu tuuma sax mu ngi gën a joxoñ kon baaraamu tuuma kii di Guillaume Soroum ak Laurent Gbagbo ñi nga xam ne kon nee na seen ay candidature daal ay provocation la moom sax xamle na ne kii di Laurent kii di Guillaume Soro kon casier judiciaire am vierge te sax moom nee na kii di Guillaume kii di Guillaume Soro place prison la wante nekkul di def campagne électorale Euh, président américain di Donald Trump moom nag euh, démb gannaaw bi nga xamee ne mu ngi doon recueillir euh, ci cercueil bu juge progressiste bu cour suprême di Ruth Bader Gibson nga xam ne daal génn àdduna moom nag ay yuuxu daal ay yuuxu daal lañ ko amal foofu kon foofale ca juridiction bu États-Unis ba daal ci cour suprême ba kon ay yuuxu daal lañ ko fa teeroo ay yuuxu yu si mel ni naan vire la maanaam jëlee leen ko fi ak yu demee noonu Euh, Donald Trump nag ñu fàttali mu ngi àndoon sax ak euh, soxnaam di Melania euh, Trump. dañ koy jeexale ak sport ak Bayern Munich bi nga xam ne dafa remporté super coupe bu Europe dafa remporté kon super coupe super coupe d'Europe démb gannaaw bi nga xamee ne mu ngi doon jongante jongante bu métti digganteem ak FC Séville. Euh, moom sax ci prolongation bi sax euh, la dugal euh, maanaam grâce benn bi boo xam ne kon Xavi Martinez moo ko dugal ci prolongation yi ci score 2-1 kon la mujjee daal gagné kii di FC Séville fële ca Budapest ñoom nag ñu fàttali ne nag ñii di waa Bayern ñoom sax ñoo remporté woon kon Ligue des champions bi lu yàggul dara. international sénégalais di gardien bi nga xam ne kon gardien de but la di international sénégalais nga xam ne mooy Edouard Mendy moom nag gannaaw bi ngi bi mu. gannaaw bi mu signé kon ak club bi di Chelsea nga xam ne fi mu nekk nii transféré nañ ko fa moom nag dafa amal ak entretien ak sit bii di situ club boobu la di Chelsea di fa xam xamle nag moom kontaanteem bi nga xam ne kon am na ko ngir rejoindre loolu di club bu nga xam ne kon club bu mag a mag la foofu le eh, ca Angleterre moom nag xam le ne ku ne bëgg na jouer club boobu di Chelsea waaye nekkul ñëpp ñoo ko mën nee na comme nag moom bu amee.